أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني نويت بتلاوة فاتحة الكتاب بنية اسم الأعظم مع الخاص بسات الألية التي لسات الألية اسم خير والخاص بمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسم سات وعين سات ما أروفي باسم الأجمية أدية صوابها إلى الروح سيد الأجود وقبلة السهود سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ubban fiihi wa taxsiman li aqi wa ijlaalan li xudratihi niyaabatan ana cheikhana wa sayidina wa sayidina rabbi abil abbas ahmad bin muhammad tiyaan wa arda wa nabi amin bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fa min muibukum wa aqikum ubaydu rabbi aji murtada siise aljanabiyu aslan wa mawlidan wa maskanan ngi nuyu ñëpp isaare ñëpp di balu àq ñëpp di baal ak ñëpp di jiital ci nuyu Baye Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Seck xalifatul am li taaifati tariqa di canabiya wa aslan al mahdiyina ila Seydi Ahmed Tidiane ila Muhammad rasulullah sallallahu alayhi waxtaan waxtaan ci mbir moo xam ne dañ koy amal ki koy amal di nitu canaba piir piir mbokkum canaba piir piir doomi canaba piir di maam Amari Seck doomi Baye boobu Seck ak soxna abu saar fa tabaarakallaahu bàyyi bubu sekk nogay sekk ku jur ak bàyyi sëriñ fàttin sekk nogay sekk amari ndaag ko jur bàyyi sëriñ fàttin amari ndaag lañ ko tuddee maam amari ndaag yàlla ñu yàlla suturaal sax jégal ñu tur ñu wax nii mag ñu mosuñu ko sàllalu kuñ ko mos a tudd kuñ ko mos a tudd rek duñ jaar ci tur yi sëriñ ndogal la ñuy wax ñun ñooy wax maam maam Amary Ndaak waaye mag ñi mos ñu ñi may tudd turam bi Serigne Ndogal rek lañ doon wax sëriñ Ndogal moo fi dëgg ci ci mag ñi rek moom lañ ko tudde daay Serigne Ndogal Cissé daay Ndogal Ndogal Fall ak daay Serigne Ndogal Diop mu ngi fi dëgg rek góor gu baax kooku lañ ko tudde waaye ormaaloon ko moo tax ñu wax ñu wax turandoo mi Serigne Ndogal bàyyi euh, maam Amary mii nag fa tabaarakàlla kon ci sëriñ Ndogal yi la bokk bàyyi boobu di wéy juróom. baay boobu baay sëriñ fàttin mi ko jur itam ci sëriñ ndogal yi la bokk baay boobu maam na koy sekk mi ko jur itam doom doom la ci maam amari ndaak fa tabaarakallaahu eh, soxna abu saar waajuram wu la ci sëñ babacar saar sëñ babacar di doom ci soxna nuuj loo soxna nuuj loo bokkoon na ci njabootu maam amari ndaak fa tabaat nettali na ma ne ma bi muy ñëw bi muy jóge jaayaan di ñëw fii ci maam ñu ñu di ko jox maam amari ndaak dañ ko faral njax ko su new def ca leetar boole kooku doom nga indi ko fii moom maam nuut loo moom ko nettali ci lamañam fa tabaarakàlla kon dagal naa ne barke mën na caa wàcc maam amri moomu nag moo am bis dan datati le bii di ñëw ca ndakaaru fa tabaarakàlla bis boobu nag ci lañu bëgg a waxtaan hmm? terrain Maguette Dane lañ koy defe ca Pikine terrain Maguette Dane ca Pikine lañ koy defee mu bëggoon nag jullit ñëpp dem ca waaye rawatina waa Canaba waaye rawatina waa kër Sëriñ Canaba Canaba nag génn kër la du dëkk kër la kër goo fi dugg rek sa bopp nga fay fekk ndax alhamdulilah maam Sëriñ Canaba moom mooy wax njabootam gi di maam Sëriñ Canaba ma Talla Seck ak maam européenne sekk ak maam Madick Seck néew na kër goo xam ne seen deret nekk fa wala deret jóge ca kër googa dem ci deret dem ci deretam kon ñun kon genn kër la di mel ni penc kii ko soxla nag bokk ak ñëpp di mbokkum ñëpp li muy woote di def tam di njëriñul ñëpp bés boobu nag daf koo tuddee Baye Alpha amadu Ba Baye Alpha Amadou Ba mooy waajuru Alpha Ba mii nga xam ne mooy doomu Soxna Astu Ba ak Ibrahima Alpha Ibrahima Alpha moomu nag fa tabaarakallaahu maam sëñ Cerno Momar Talla Seck baradalaaw isaamahu fil jannati bi mu koy dénk baayam Ibrahima Alpha bisu gàmm la lu gàmm ba gàmm gi jeex takkusaani gàmm warum ak laaj alal alal te boobu laaj ñu jox ko ndax dañ ko gëmoon ñu dajale alal yu bari ba boole alal jooja ak ijaasa ak soxna astu ba waajur soxna alfa ba jox ko Ibrahima Alpha ca ca digg penc ma ca kanam mbooloo ma ni ko fii lu fi ñëw sa barkeb maama ndax Ibrahima Alpha alfa alfa cheikhu cheikhu mahdiyu te maam mahdiyu dafa waxoon ca ca woyama ne wata xaalaw baaxiyan ilal fajri taalihin wala tan ko soo xayyan xayral mawti naasilu wata xaalaw kaay leen baax yéen ngeen jaayanteeg aji fenk ji wala tan ko soo bu leen firi jaayanteeg lu dul dee ko ngeen wàcc illiyi na mu ne jaayante gi ñett la yonent bay njaal benn gi Seydi Ahmad Tijaani digg bi may mujj gi mu ne ko jaayanteeg yonent bi jaayanteeg cheikh fekk sama jaayante jaayante na man sax jaayante mën naa firiku ku jaayanteeg man te fekkoo jaayante yow sax jaayante mën naa laa jaayanteel ba ci yonent bi wa tabaarakallaahu baay alfa boobu moom nag euh, waajuram ibrahima alfa moom la maam amari sekk mii di doomi baay boobu sekk ak soxna abu saar tudde bis boobu muy woote moo tax ñu bëggoon cee def waxtaan dogal na euh, baay ibrahima alfa Alpha Mahmoudou ko jur Alpha Mahmoudou Cheikhu Amadou ko jur Cheikhu Amadou Limaamul Mahdi yoo ko jur Limaamul Mahdi yu laata muy woote dani yunaaji bi rabbil bi rabbil arsi ak borom aras min fawqi arsi ca kaw arasam jëf kon moom riñaan na ndax kaw arasu yàlla ji ku riñaan dafa dem moo ne yunaaji bi rabbil arsi min fawqi arsihi wa alfaasu oo sam un wa ahkaamuhu adlu bi nga la naag borom aras ca kaw arasam sa te nee la ma fa déeyaaleeg moom malayka yi ko seede woon nangul nañ ma ko wa alfaasu oo sam un wa la ma fa atte tam mandul nañ ko wa ahkaamuhu adlu moo tax taa bi mu ñëwee nag mu ne wata xaalaw baaxiyan illal fajri taalihin wala tan ko soo xayyan xeeral moo ci naasilu wata xaalaw kaay leen baaxiyan ngeen jaayanteeg ataalihi aji fenk ji wala tan ko so bu leen firi jaayante ayande dund xawrel matu lu kon naa si di ngeen wàcc janatul firdaws ajana firdaws kon bisu bàyyi alfa boobu na ni ku ca dem ci yëngu ca mel nga ni ku jaayanteeg maamam Maadiyu jaayanteeg maamam alfa jaayanteeg Ibrahima alfa ko tudde fay waajuram moo tax ñu ngi ci woo jullit ñëpp sax ci taalibe canaba yëpp yëmul ci fépp fu nekk ci kaw suuf si tey jaayante googu war nga caa bokk comme jaayante gi ñett la yonent bi njaal gi benn gi seex yi dégg maa yooyu mujj gi loolu la yiw woowu la maam amari yéene jullit ñëpp ñëpp fekk yiw yi moom la yéene njabootu maam kër maam maati yu gépp moom la yéene njabootu maam sëñ seexu canaba gépp moom la yéene njabootu canaba gépp góor ñeeg jigéen ñi maw mag ñeeg ndaw ñi fa tabaarakàlla ku ca man ku ne daal na nga ci wuy ji te loo ca man nga def ko ci rawatina nag ñi dëkk Thiénaba seen bis la ndax bisu maam Amary Seck bisu Thiénaba gépp la waaye it bisu Médina Sarr gépp la ndax abu saar fa tabaraka waajuram bu jigéen sëñ Babacar Sarr ko jur sëñ Babacar Sarr ñàkkur Sarr ko jur fa tabarakallah te maam ñàkkur Sarr góor moo da waxoon ni ko baaba baakar dama laa bañ bañ delloo sa kër baa nga mel na ña ma joxul woon dama laa bañ a delloo sa kër baa nga mel na ña ma joxul woon fa tabaarakallah kon bi bi bisu ñëpp la xam naa man su fekkoon wér wér ma na ko kon sama bis la ndax maa ngi ñëpp ci yem li ci ñëpp amit loolu laa ci am fa ñuy ñaan ñuy ñaan yéen waa Thiénaba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ku man mu dem ca lu waaye man ni mu def ko ci bu doon maam amari rek jar na dem bu doon bàyyi buubu sekk rek jar na dem bu doon bàyyi alfa ba rek jar na dem waaye bu dee Ibrahima alfa nag dem daa war waajib la ci kenn ku ne ci canaba nga dem ca loo ca loo ci mën nga def ko ca moo tax ñu di ci woo ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi rawatina nag ñi nga xam ne dañoo laal ci maam ñakkur te maam ñakkur ci canaba neexu la bañ a laal fa tabaarakàlla ndax maam sëñ canaba ma tàll sekk ci wàllu baaxam wàllu ngoram wàllu kóllëreem bariwaana fu doomu ñàkkur ne ci canaba fekk na fa doomu maam Amary Ndaak wala rakk góor gu mag fa tabaarakàlla sama waajuru jigéen bi mu ñëw fii fi la fekk maam Yacine Seck te maam Yacine moo Ibra Pène nañoo bokk ndey ak baay yaa naar Sarr ba muy dem kër yaaba fa la fekk maam Aminta Seck te maam Aminta Seck maam sëñ Jara baa ko jur waaw sama yaay sëy na fa la fekk maam maam maam Soxna Seck kon maam maam sëñ Jara moo taal la sekk ni mu defoon dooyu bopp yi noonu la defoon dooyu maam ñàkkur fa tabaarakàlla kon àq la ci nun ñëpp nag orma boobu ñu sàmm ko rawaatale bis nga xam nag dafa ne diggante caareen ak cekkeen fa tabaarakàlla ndax bu fekkee maam maam na koy sekk la caareen la cekkeen la bu fekkee <laughs> abu saar la caareen la su fekkee mbokk gi la nag kenn jiituwunu ci moo tax ñu ngi ci woo ñëpp eh, baay baay boobu itam fa tabaarakàlla ku ko xam ku nekk xam nga ni sang la bëggul ci daraja daara bëggul bëggul ci maxaama daara bëggul ci alal daara bëggul ci baat dara bëggul ci cir dara ñun ñëpp kenn ko nu nga ni mu sangale ci yow lu lu xew mu dem ca te li muy xewle bariwut waaye xewu doomam ji nag mooy xewam dama dama dama jàpp ne du du waxkat du woote kat waaye kon mu woote ci woote gi mu waroon a woote nag maa ngi koy uutu fii di ko uuteel di ko wooteel amul kenn ku am soxla canaba bàyyi boobu yëkkute ñëwu ca kon nag tey bu demee ba doomam bii am soxla bu toll nii soxla yi mu doon demal nit ñi yëpp war koo caa mën dem ca bis ba fekke bis ba tooge ba jeex loolu daal lañ doon ñaan ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne dara tawu ko yàlla na defar bis bi ba mu mel na borom bëgg ànd ak njariñ ànd ak xéewal ànd ak jàmm ànd ak sutura ànd ak xel mu dal ñu dem ci ak jàmm dellusi ci ak jàmm lu ca maam amari yëngu yàlla na ko yàlla nangu te maam amari it fa tabaarakallaahu bi mu dalee commencé di yëngu ci yàlla bari na bu ya ay at yu bari su gàmmu jotee mooy dem lal wut basan yu ma lal ca gàmmu ga wut lu mu jox waa gàmmu ga ci guddi gàmmu ga ba guddi gàmmu ga jeex te gàmmu cana bu ñu nag du sikkar si du tànt yi du daayira yi ibnu ma ibbi la boo déggee ñun séeréer bi wàcc na rek ibnu ma bay bëgg a te maam sëñ Thierno moo taala sekk nee na ibnu mayib bi nii mu toll nii tuuti la ci téere bi euh, ñu ko doon woy li ñu doon woy ci biir dëkk yi moom la ñu muy téere bi waaye li ñu doon ci àll bi euh, téere la boo xam ne mi ci kër gi waaye ñu bari amuñu ko li ni mu toll nii mooy yi ñu doon woy ci biir dëkk yi waaye li doon woy ci àll bi yëpp am na benn téere boo xam ne lépp nga ca téere baa ci kër gi kon bis boobu nag suñu bés la ñun ñëpp mu ñu ñu di ci oo ñëpp nag di tam yaakaar seen wuy si loolu daal moo doon waxtaanu tey bi ñu ngi nuyu ñëpp di saare ñëpp di bala ak ñëpp di ñaan ñëpp koo xam ne dangaa bëgg xam silsile bi ni mu demee yàllaaw bi ñuy jàng bu ñu wujji faa ba noppi silsila bi yëpp ngi ci la ko tàmbalee ci yonent bi jaar ci Sëriñ Ahmadu Tijaan jaar ci jaar ci maam Abdoul maam Abdou Karim jaar ci Mamadou Mamadou Afas maam Abdou Karim si Sinaa Lel Maadi Cheikh Amadou ba ci Mamadou Ndak ba ci ba ci najlu sayidul musaid rabbi yàllaaw te mooy maam sëñ moo sekk moo taala sekk ñëpp ngi ci te yoon nag soo ciy jaar da ngay fexe ba xam yoon wi xam fi silsila bi jaar te lépp a ngi ci biir kon ñu ngi woote ñu ngi woo ñëpp te di di nag di leen séentu itam nag loolu daal moo doon waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu